safara lañ daa jaamu ne mooy seen yàlla xamuñ leer gis nañ safara leer rek ñu ne mooy yàlla ñu di ko jaamu seen safara sañ doon jaamu junne at muy tàkk mas dafay kere ba yonent juddoo sallallahu alayhi wa sallam ba ne gamaj waaw ba mel ni ndox a fa taawoon de nag sallallahu alayhi ay kawte feeñ na ba mu juddoo leer la àndat àndut ak deret ba leer gi mu leeral na goxe àddina yépp ba aminatu fa mu sukk ci makka di ko wasin mi ngi janoog taaxi room ya waaw ci réewi tubaabee de ba mu juddoo dafa tisoo dina ak tisoo dal di ne alhamdulillahi rabbil alamina waaw malaaka yi ndokkeel ko de waaw ba mu juddoo dafa dal di rot si jootal waaw mel ni waa ju mag ju xam yàlla de na muy jaamoo yàlla ba mu juddoo moom yonent bi sallallahu alayhi wa xoolu dara ci mbindeef yi lu mooy asamaan waykat bi ne lu tax booba muy xool asamaan waaw mbiram dafa kawe ku sa mbir fasoo kawe waaw doo xool lu mooy lu kawe de te mbindeef yi ñuy gis asamaan a ci gën a kawe de moo tax yonentu ba mu juddoo xoolu dara lu mooy waaw asamaan de yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam ba mu juddoo am nañu ko nampal yaayam nampal na ko aminatu waaw naka noonu suwaybatu nampal na ko mbayalar abi lahab naka noona xalimatu saadiya waaw nampal na ko de ay jànq nampal nañ ko yo xamne ku ci nekk xaatikatu la tudd de moo muy wax na may domi hawati ki haati katu jank yo xamne ne mësuñoo sey wa alayhi wa sallam génne ca lumb woo xam ne moo doon cëtab saytaane ci moom ba mu juddoo ba mu ñenanti at la yaayam dee fekk na baayam moom dee woon na bañ ko ëmbee ba mu ñaari weer ba mu xamee ñaari at ba yaayam dee Abdul Mutalib maa ma xamee ko de ba mu xamee ñaari at nag Abdul Mutalib dee Abu Talib baayam bu ndaw xamee ko de sallallahu alayhi wa sallam ba ma xamee fukki at ak ñaar abdul muta abi taalib di dem saam ba nga xamee ne pare na pour dem saam mu ne yonent bi moom na fi def ku demee nii waaw kenn du ko génnee réew de léegi tey noonu jotal ko luñ sib yonent sallallahu alayhi wa taalib seet ko gis ko kontaanul dara mu ne ko lu la lu la dal da nga am loo naqari mu ne ko waaw mu ne ko ndax li ma bëgg a dem bàyyi la fi mu ne ko waaw mu ne ko boo nag kontaanal du ma tàggoog yow mu ko pareel ñu dem ba mu demee bañ demee ba nga xam ne dem nañ ci dëkk ba nga xam ne ci la bàyyi raaraay bi nekk ñu wàcc ñu sippi seeni gëlëm ca penc ma de bàyyi raa di yónnee ne ne ren gan ñu nekk ci penc mi invité naa leen añ nañ ñëw añ fi ci man de te bu kenn des ñoom ñëpp nañ ñëw ñuy ñuy dem nag ne yonent bi toog fi yow wattul ñu suñ bagage yi de moo ci gën di gone ñu dal di ñëw ñoom mag ñi ñëpp abi taalib seet bahira seet seet seet ne leen waaw kenn desut ñu ne déedéet kenn desut mu ne laa bu am na ko def ñu ne ko daanaka kenn desut ndax suñ gone gu tuuti koo xam ne moo ñëwatul suñu yére moom rek lañu fa bàyyi de mu ne dem leen xoo ko ñu xoo ko ba yonent bi ñëwee nag mu ne waaw kay fekk Bahira dafa seen niir wi di xeral yonent bi de te jàng na ci téere yu jëkk yi ne niir du xeral lu may yonent bi nga xam ne moo mooy ñëw ji mu ak jamono de moo tax mu invité leen naa ko def nag ba yonent ñëwee nag mu sob leen a nag ba nga xamee ne lekk nañ ba noppi bay bëgg a dellu mu ne xale bi ana ku ko ci jur ne xam naa ne baayam dundul kii xelul baayam di dund de ana ku ko Abu Taalib ne man mu deey ko ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko xale bi bul dem ak moom delloo ko mu ñibbi makka yahud yi xam nañ meloom te yahud yi ñu xañaan lañ buñ gisee ne yonent bi génn na bani israil mi ngi dem ci beneen weneen xeet danañ jéem a sàkk pexe muñ lore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax na ba wàññil sa doom ji mu ñibbi de abi taalib ne ko dégg naa li nga wax noonu juróomi yow dal dina jalañ ci bahira rango seeni jaasi mu ne leen fu ngeen jëm ñu ne ko yonent bi nga xam ne moo def ci yonent yi te xaram lay juddoo des ci tay leen dana ci dëkk bii de moom lañuy ñuy seet bëgg suñ ko gisee rek rey ko mu ne leen ma laaj leen jëkk su fekkee ni yàlla namm na moo fu waa jii dana dund ba nekk yonent da ngeen ko mën a roy li yàlla na mu bañ a am ah ñu ne déedéet mu ne su fekkee nag duut ni moo sosoo doo yonent bi su ngeen royee doomu jaamur tooñ leen bàyyi leen jaamur dem leen ñu daal di wàññeeku ñoom yahud mu ne abi taalib lii daal a waxoon wàññeeku nag sa doom ji mu wàññeeku moom yonent bi sallallahu alayhi wa ba ma xamee fukki at ak juróom ñaar fekke na xilful fulool dañoo mbooloo mu géñoo woon n dañuy dindi képp kuñ tooñati rek ñoom danañ ko faj fekke na ko bokkoon na ca ba nga xamee ne am na fanweeri at am na ñaar fukki at juróom ca lañ ko may nday xadijatu jabaram de ba ma amee fanweeri at la Quraysh tabax kaaba gi ci si caajar la soot nag ñu xëccoo ku koy teg ci palaasam bi ñu ñu xëccoo ko bay xeexante gàdduwante jaasi ñu ne kenn du ko teg saw xaskan féete kaw ba faw ñu ba nga xamee ne bay nañ tabax ba ay fan des nag ñu ne nañ d'accord ci ne waa baabu salaam bi ku fi jëkk ñëw rek nañ ko jox ajalu la soob xam ne kooku la ko yàlla tegloo rek yonente jëkk faa ñëw nag ñu daal ne tànnal nañ yàlla tànnal ñu lamin te moom mooy ki nga xam ne ñun ñëpp gëdëm nañ ko far de ñu ñëw ne ko ñëwal ajalu la soob bi dañ ne géño boo xam ne ñoo ko teg ci palaasam bi daañ seete kaw ba faw mboobu ba tey moom la ñu xëccoo xaw nañ ci rawante tabax bi taxaw na ngir loolu léegi nag waaw dañoo tànn lool yow la ñu yàlla tànnal teg ko yow ci palaasam bi yooyu gëdëm nañ yonent ne waaye man danaa def lu gëdëm loo ñëpp daal indi leen ma maraan ñu indi maraan mu rëy mu ko waaw teg xajal na soot ca digg ba ne askan yëpp nañ ci jàpp ñëpp jàpp ca de waaw yëkkati ba nga xam ne nañ ko ca palaasam ba nag yonent tabax ko nag waaw naa ko def mu ne xatte na loo xam ne gëdëm loo na ñëpp de ba nga xamee ne am na ñaar fukki at ak juróom la xamee ci la dencoon xadijatu fekk na na muy denc xadijatu xadijatu makka moo ci ëppoon xalal mboolem jaaykat yëpp moom lañ daa jaayali bu teret jotee kuy wut liggéey rek ci xadijatu ngay dem mu jox la waaw nga dem saam de waaw tereti ñëw rek léegi moom mu fay de naa ko def waaw bani xaasim nag booltoo bajjani yonent bi rek ay bay taxam ne Muhammad mat naa am jabar de waaw ñu ne waaye kër gi dara ne uji ci xalal duñ ko mën a wutale ci jabar de ñu ne na def ni moromam dem ca xadijatu mu jox ko njaay rek mu dem jaay si ñibbisee lu mu jaam rek ñu takkal ko jabar de ñu ne ko demal ci xadijatu mu jox lam jaay de fekk na xadijatu moom it mi ngi fuulu yonent bi ndax dafa mas a gént weer daanu ci makka daanu ci néegam daanu ci pekkam penkam de mu laaj ko war a xatam nawfal mu ne ko su gént gi dëggoo yonent bi ñëw ci mu ak jamono mooy dafa jëkkër de moo taxoon mu bàyyi xelam ci loolu ba mu déggee ñuy melal melo yi waaw yonent bi nag sallallahu alayhi wa ñu ko ko ko di ko wax li ñu xam ci moom ci jikko de waaw gannaaw ga nag yéen defar ñëw ne ko dama bëgg nga jox moom njaay ma ma traité de mu dal di ko faral nag dal di ko génneel marchandise mu doy boole koog jaamam bu ñuy wax may traité de yoonu ñaareelam dem saam ngoog mu dem saam nag ko def nag traité am na fa ñaari weer guddi waaw ñibbisi waaw may faratu nag mënoon naa bind waaw Xadijatu ko boole naa la ak yonent bi loo gis ci moom rek nag ma ko bind de may sarat su ne suba gañ xëye Makka di dem di dem di dem di dem ba digg njoloo jot waaw réew yi jaas fu néew ker la waaw ñu gis garab ak garab boo xam ne am na ker buñu gisaa garab goo am ker dañ koy jëkkante de waaw naa ko def xaafila bi yëpp ñëw sippi ca ron garab gi nga xam ne am na ker yonent moom moo féete woon gannaaw mu ak si fekk ker gi fees de waaw mu hut hut ko xajal waaw ba mu dugg ci ker gi kenn xajal ko de mu dem toog ca naajoo ba mu demee toog ker ga ne ñara wa jëfani ñi ñëw fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw sam toog de may saratu bind ko waaw xadijatu de bañ demee may saratu ne bu ñu ndoo jaaw ba ngoon jot bu ñu xëyee rek fekk marchandise bi mel nañ ko takke woon ba ñuy jëm makka de waaw ba nga xam ne ñaari weer ak ñaar fukki guddi de waaw ñi ñibbisi nag waaw xadijatu ba muy ñibbisi dafa xoo waa makka yépp ñii teeru yonent bi ni waaw ci mbedd yi waaw bi sallallahu jébbale am yaayam de waaye dem nag toog seen kër diit bu yàgg ba janam yi ne ko demal ci xadijatu mu fay la mu ñëw baag si ci xadijatu rus ko wax ne fay ma mu delluwaat ceele sëñ ne ko dellul xadijatu mu dellu seeti yoonu ñaareel rus ko wax ne fay mu delluwaat ñetteel mu ñëw xadijatu ne ko lan la waaw mu taxawoon ko gannaaw ne ko sama mbokk yi ñoo ma yebal ci yow ñu ne nga fay ma mu ne ko ma looy defee pay gi mu ne ko dañoo wax ne dañ maa bëgg a wutal jabar de mu ne ko waaw defe nga ne ndax kere ci benn yoon rek lañ cay am ci mën takk jabar samp kër ah mu ne ko sama mbokk loolu lañ ne boo demee ne leen gis naa jigéen joo xam ne jigéen ju rafet la te itam jigéen ju rëy la ku askanu te ku bëri xalal la lenn rek day moom la xaw a sikk mooy xaw naa mage ci xet jigéen jooju day soo ko bëggee man danaa la ko labatal te bon dana la jappandi de mune ma dem wax loolu samay mbokk ba mu wax ko ay mbokam ñu dal di ñëwaat khadija tu khulo ne ko mbaru saaral jeela jeey ba ngay wax muhammad nako mo wutal la jabar ju mat lu muy defé jabar magat mune len leen du loolu de man day sama bop ra koy garal man day bu ma bëggee rek dana ak mom de fekk na nak bani hasim ñom dañuy ngéeju am jabar ji bok ci bani maxsoom de te xadijatu ci bani maxsum la bokk bokk yonent bi yëpp ñoom dal di nangu kontaan lool ne ko kay mooy hurusu Quraysh ah mbokki xadijatu itam ñëpp nangu lu may baayam baayam moom ne mukk du ca dal de naa ko def xadijatu dal nandal baayam sangara booba sangara xaraamagut mu naan ba mandi mu dal di ko dogal mbubb solal ko ne ko waaw muhammad mii ne daf ma bëgg loo ci wax mu ne ko may naa la ko ah mu ne ko bindal mu bind signé xadija du denc ko itam de dal di yónnee ca abi abi talib ne ko ñëwal yaag ñi labati rek abi talib dal di ñëw mu ne ñi li ñuy dox mu ne ko dañuy ñëw takk si rek muhammad la leen yónni mu ne déedéet man noonu duma ko may sama doom de mu wan ko mbindam ne ko lii yaa ko bind signé soo waxee leneen lu wuuteeg lii nag yaaram dañ lay wax ne da ngaa dof rek de te gisoo mbubb mi nga sol Muhammad solal na la mbubb yow nangoon nga ba Muhammad solal na la mbubb mi nga xam ne ñu def koy solal gorom waaw ah, mu ne baax na bon nangu naa de ñu takkal Xadijatu yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ci la Abu Talib xutba xutbaam nga ne ñu ngi bokk ci sëti Maadi ibnu Adnaan waaw ci cosaanal Mudar gannaaw loolu Muhammad mile buñ ko peese peese woon ak mboolem góor yaa dina moo leen lëng ci ngëneel dilee ku néew xalal la sax mi ngi labat xadijatu bintu xuwaylid de ñu daal di ko takkal nag sallallahu alayhi mu same ko ñaar fukki tëngi gëléem wala ñaar fukki dollars yi wurus xadijatu nag daal loj lu bari ci ay gëléem dal di def waaw cey tëgëre dal di invité waa Makka yëpp jëbéeram yi mu solal leen ay yére ñi tëgg di taj di xàkk yonent bi na ko ndax lii xaay na mu ne lii day xaay yéen seen mos bi dara newu ci fecc day baaxul waaye yéen seen ba mu wàññiwul dara moo tax ba tey tëgg ndënd ak fa dagan ci céet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di xadijatu nag booba xadijatu ñeneen fukki at la am yonent am ñaar fukki at ak juróom mage na ko fukki at ak juróom te xaaday jigéen yi makka xuray si ku ci xasam laq ñeen fukki at dootoo am doom le waaye terewut xadijatu moom yàlla may na ko ngir ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jub xaasim saahab yonent sallallahu alayhi moo jub abdoulaye moo jut zeynaba moo jut ruqayatu moo jut ummu kulsum moo jut itam fatimatu sangab jigéen ñi de Seynabu mooy mag ci doom yu jigéen yi Xaasim mooy mag ci doom yu góor yi ñoom ñaar nag wuute nañ ci ku ci mag Abdoulaye moomu nag moom la ñuy wax tayib di ko wax taayir moo tax ñi géej wut ci seer dañoo def tayib ak taayir muy ñaari nit moo tax ñuy defal ñuy wax ne yonent am na juróom-ñetti doom te yonent juróom-ñaari doom rek la am Xaasim mooy taawam bu góor Abdoulaye nag mooy Tayyib mooy Taahir ndax moom la yonent jur gannaaw bu ñu ko yónnee moo tax ñu doon ko dàkkantale Tayyib di ko dàkkantale Taahir de ñoom ñaar benn la ñaari tuddi benn nit la de ak Ibrahima mi mu jëte ak ñetti doom yu góor yooyu la am le ak Zeynabu Ruqayatoog Ummu Kulsoom ak Fatimatu de ñeenti doom yu jigéen yooyu la am amma doomam yu góor ñoom kenn dundu ci ku ci nekk boo amee fukki weer ak juróom benn fukki weer ak juróom ñaar ñoom ñëpp foofu lañ dee de lu tax yonante yi mu ak yonante yi te suñ dundoon rek xam ci ko do yonante de ba nga xamee loolu am na nag Zeynabu ay ngirta yonante daal ci doomu bi jigéen la génne Zeynabu mu may ko Abul Aasi moo jut Xaliil ibn Abil Aasi nga xam ne kera kera fatu Makka moom la yonante togg ci gileemam xal baaw moo jut itam umaamatu umaamatu moomu Seydina Ali ibn Abi Talib moo ko jël gannaaw bu nday Fatimatu génne àddina de daga ñu daga ñoo na boole waaye ba Fatimatu génne àddina nag umaamatu Seydina Ali jël na ko de mu remplacé tantaam ba nga xamee ne loolu am na ruqayatu yonent Seydina Osman la ko may ba matee sëy mu génn àddina kera ba ñuy yónni ñibbi jóge ca xare badar booba la ñuy gunge ruqayatu ñu di ko suuli de bam dee yonent dal di ko mayaat umu kulsoom rakam umu kulsoom itam dee ñoom ñaar ñëpp amuñ doom ak sayidina osman ruqayatu amoon na bu matut fér waaw mutu tudde ko abdoulaye moom lañ koy dakkantale abu abdullahi abu hamrin mooy kunyaam bu gën a siiw waaye abu abdullahi ko gënal ci kunyaam yëpp ndax li nga xam ne abdullahi doomi ruqayatu doomi yonent la de sallallahu alayhi wa sallam umu kulsum moom amul doom ba mu dee yonent ne su ma amoon téeméeri doom yu jigéen ñoom ñëpp danaa leen may Ousmane ku ci dee ma ma teg ci ka ca des ci dee ma teg ci ka ca des ba ba téeméeri yi jeex de moo tax sidina Ousmane ñi di ko wax soo nuuree ni de amul benn góor bu mas a denc ñaari doomi yonent waaw lu mooy sidina Usmaan ibn Affaan de Fatimatu nag ba mu matee sëy sidina Abubakar ñëw ñaan ko de yonent ne maa ngi nekk ndigalal yàlla ci Fatimatu de yàlla digale guma ci dara mu dem ci sidina Omar ne ko nañ dem ma ñaanal la ko ñëw ne ko may ko Omar mu ne maa ngi xaar ndigalal yàlla ci yonent ci ci Fatimatu de ñu dem ca Seydina Ali ne ko nañ dem ñu ñaanal la ko de